baabu tahaaratil maay lii mooy buntub laabug ndox wa taw bi ak malaan buqaati ak pàkk wa maag la nga xam ne wi gis ko dana doy mu ne libaasi ci col fi salaati ci julli maanaam ndegam boo dee laab ndox lañ koy defee ba mu të ñu door a wut suuf kon day wax man ndox moo laab bañ mën koo jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla ndegam itam boo dee julli sa yére daa war a set sa yaram war a set bërëb ba ngay jullee muy moom la moo la tudde pàkk mooy bërëb ba ngay jullee yooyu dañoo war a set ba tey kon yooyu dana wax ba xam luy àtte ba ndegam itam boo dee julli dangaa war a sàng sa awra di daal di wax kon li nga xam ne moo lay doy ci col boo dee julli nga xam ne boo ko yéesalee rek du doyate wal musalli aji julli yu naa ji dana deeyaaleeg rabbahu boromam fa alayhi kon war na ko an yata ëxëba mu waaj di zaalika ngir loolee bil wa dooyi ci am jàpp aw bi tuxuri wala ci cangaay in wajaba ndeem war na alayhi ci moom ak tuxuri cangaay nee na boo dee bëgg a julli xamal ne kon na ngay bëgg a deeyaaleeg sa borom bi la bind kon na war ngaa waaj waaj ma ca war waaj ma ca war nag bu fekkee jàpp la nga jàpp sangu farata la nga sangu bu fekkee loolu dafa laa të ndax benn muy ak wéré di mbaa ñàkk ndox nga daal di tiim mooy waaj la waaye kon dana nekk daalika loolee bi maa ngi ci am ndox taahirin laab xayri mashwabin moom du lu ñu jar jar mooy jar bi najaasatin ci sobe wala bi maa indi ci am ndox xatta xay yara moom soppi ko ne law nu xoo meloom wa daa wax meloom wa rek waaye caf nga ko ci la xen nga ci la min shay'in ngir dara xaalatahoo loolu jaxasoo naa moom min shay'in ci dara najisin luy aji sobewu aw taahirin laab ne ndox mi ñu war a jàppee mbaa ñu mën koo sangoo farata mbaa ñu mën koo yóbbu ci wana wa mbaa ñu mën koo yooyu am sobe day nekk ndox mutlaq mutlaq nag mooy moo xam ne melo wa wala couleur ba mbaa dara sotti ku wucce ci loo xam ne mëneesoon na koo moytu waaw bu fekkee la ko mëneesoon na koo moytu ni ki café li cëpp jotewut ndox dara wala soow wala ceeb wala laax yooyu ñu joteeg ndox rek sabab la waaye dend ni bu ko soppee rek ba mën koo xàmmee caf ka mbaa couleur mbaa xet rek dina yàqu di wàllu jaamu yàlla ko demoon baax ay tey noonu mu des nag bu fekkee la ko soppi yàllaa ko boole ndox ñu faral di ko ànd moom mu des leen tàggale loolu moom kon du ko yàq lu wax illaa maa ndari la nga xam ne xay yarat soppi na ko naxaw meloom wa al ardu suuf sa allati suuf sa nga xam ne xoo moom ndox mi bi xaa nekk na ca moom min sabaxatin ci suufus xorom aw xam atin wala ban maa wala nduróom ñoom ñaar nee na yàlla soppi ndox ma moo xam ci couleur bi wax la caf ka la moo xam ci xet ga la waaye suuf sa ci boppam sam sam taamoom ndox ma mbaa sañ koy wëgge moo ko soppi nit ki dafa xong cooy soppi ndox mi mbaa dafa am xorom safal ndox mi xorom mbaa dafa ñuul kukk ba tey noonu mbaa dafa am mbaala mbaal mbaa dafa am ay wallax njaan yooyu ci juddoo yëpp moom du yàq ndox mi ndax yooyu moom yàllaa ko boole ndox mi wamaawul sam asamaan wamaawul xuyóoni ak ndoxum bët yi bët yi mooy lu mel ni siyaan yi maanaam bët yi bal ndox ndox yi ball ci suuf lay tudde ay bët mel ni siyaan yi wamaawul abaar yi ak ndoxum teen yi wamaawul baxar yi ak ndoxum géej tayibun aji tey la taahirun te aji laab la mutahirun te aji laabal la lin najaasaati ñeel sobe nee na ndox mi bàyyi ko ci asamaan wala mi nga tànge ci teen yi mba siyaan yi wala géej yépp nee na bu fekkee leneen laalaatu ko ba soppi ko kon baax na laab na te mën naa laabal ah mën nga caa jàpp mën nga caa sangu farata mën nga ko nag mën nga koo fóoti yére yu am sobe wama loo xam ne xuyira soppeef na law na foo meloom wa dafa wax meloom waaye caf ga ca la xet ga ca la bi shay in ci dara rin li aji laab xal la loolu wàcc na fii ci moom fa dalikal maaw moomee ndox taahirun aji laab la xayru mutahirin waaye du aji laabal fi wadoo in ci jàpp aw tuuxrin wala cangaay aw zawaali najaasatin wala dindi sobe wala nga dañuk sobe bu fekkee la soppi ndox ma moo xam melo wala soppi wala caf ka nga mbaa xet ga la ko soppi day lu laab mel ne soow dem ca wala lem wala diw wala suukar wala café yu demee noonu kon ndox ma ci boppam laab na laab na mooy boo ko bëggee naan mën koo naan wala sangoo ko sangum saabu muy toilette ak noo ko bëgg a jëfandikoo togg yooyu yëpp mën na ko waaye nag doo ko mën a jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla nekk jàpp ca mbaa sangu ca farata mbaa dindi ca sobe mbaa fóot ca yéer yu am sobe am diis ko ci man bu nee na nga dindi ci sobe mbaa nga fóot ca yéer yu am sobe ba noppi nag yéer yu am sobe ba noppi wëlbatiku nag seetluwaat ko ci ndox mel ne ni ngay jàppee mooy awalwaat ca kaw rek ndox mel ne ni ngay jàppee awalwaat ga moom du jar du jar raxas maanaam du jar fete ndax sobe si dañoo nag lay awale gi moom li mu jariñ mooy dindi àtte bi rek wamaa loo xam ne xayaratu soppi na ko an najaasatu sobe falay sa bi taahirin kon du aji laab wala mutahirin tey du aji laabal ina bu fekkee ndox ma la ko soppi bañ mën ko caa xàmmee day sobe mel ne saw mu aay wala xayta yu aay li tax ma ne saw mu aay mbaa xayta yu aay daa am sawa xayta yoo xam ne yoon jàppu ko sobe sawa xayta yu bàyyi ko ci xarab buy nga xam ne ñoom daga nañoo lekk te duñ lekk duñ lekk sobe yooyu seen saw wala seen xayta laab na bu ko soppi woon kon day mel ni rek lu laab soppi waaye li muy bëgg a wax ni nag mooy sawa xayta yi nga xam ne sobe lañ wala deret bi nga xam ne sobe la wala sàngara yooyu bu fekkoon yooyu ñoo soppi ndox mi kon ndox mi moom tur rek ci des ba noppi ndab la ko des sax ndab la ko defoon sax day jar nga raxas ko moom itam wa xalilu maay aju néewi ndox yu naj ji suhoo dana ko sobeel xalilu najaasati aju néewi sobe wa in lam tuxay yuruhu ak doonte soppiwu ko ndox mu néew mooy ndox moo xam dafa yem ci jàpp rek ndeyam na ngay jàpp mbaa mu yem ci sangu farata ndeyam na ngay sangu farata moom nee na bu ca tuuti sobe demoon xam ne mënis ko caa xàmmee sax du tee mu yàqu jooju wax na nga teel koo bàyyi bañ koo jàpp wax ji gën a wër mooy ndegam tuut sobe moo ca dem waaye soppiwu kenn mënu ko caa xàmmee gis nga ko gis rek moo tax nga am dem na ca kon dañ koy sib rek ci kaw nga am meneen te bu fekkee amoo meneen sax kon deesu ko sib te bu ndox mu bari woon ba tey sobe soppi sobe dem ca noonu waaye soppiwu ko it kon sib ga sax dañ ndax li wax mooy ndox mu néew yam ci jàpp mbaa yam ci sang waaye bu ëppan loolu ndox ma daa bari tuut sobe dem ci ba kenn mënu ko caa xàmmee su boobaa moom kenn du ko sibati sax wa qillatul maay néewu ndox ma maa ihkaamil xasli ànd ak xereñ raxas ga sunnatun sunna la wa sarafu ëppal ga minhu ci moom xulluwun teengal diine la ba bidaxatun te bidaa la nee na ndox mi nga def ko lu yem rek te ragg bu baax a baax sunna la lu ñu sopp la ëppal gi ndox mi nag moom ëpp naa def moom teengal diine la te bidaa la maanaam xóotal diine ak weesu rek fu mu war a yem la ak bidaaw ëpp naa def waxad tawadda a jàppoon na rasulullah yonente bi yàlla wi salla yàlla dool tedd nga allahu yàlla alay ci moom wasallama tem doolu ko wóolu bi muddin ci mudd waxuuti moom mudd was nu rëttalin mandaxem rëttalu la wa tulisin akub ceer wata taharate sangoo woon na wata taharate sangoo woon na bi saa in ci saa waxuuti moom saa arbaxatu am daal di mooy ñeenti mudd bi mudd xii ci mudd yonante bi alayhi yàlla nekk ci moom asalaatu dolli tëral wasalaam ak dolli woolu ñen yonante bi jàppe woon na lu tolloog mudd mudd nag moom nee na bu fekkoon ne xamoon nga li ñuy wax ritlu lu toll ni moom akub ceer xanaa boo nattee ritlu ba mu fees akub ceeram lu toll noonu képp la mudd tollool bëgg wax ne yonante bi jàppan ni ndox su néew rek soo xam ne bëriwutoon rek sanga woon na itam saax saax nag am ci natt wala ci pees day mel ne mooy ñaari kilo kon day mel ne soriwut ñaari litre ko defee nag kon lépp da ci day yoon rek ne yonante bi ñu bare woon kawar te teewul mu sangoo lu tolloo ñaari lu tolloo benn saa amuñ ñeenti mudd mudd war yees na ko wax barcab say loxo boo defee sa ñaari loxo bañ fees te bankoo ko talaloo ko lu ko fees rek fekk say loxo digg doom ba tey loolu mudd la loolu yëpp tegtal la ci yonante bi rek jàppe woon ndox su néew sangoo woon ndox ndox su néew nga xam ne kon daal jëm yàq ndox yi moom bëgguñu ko bañ nañ ko lool lool wa taharatu buqaati laabu pàkk li salaati ñeel julli waajibatun aji war la nee na bërëb ba ngay jullee bañ a am sobe loolu lu war la bokk na ci sarti julli nga bañ a julliwaale sobe te di ko tey moo xam fa ngay jullee la moo tax mu ne ko saalika naka noonu taxaaratu taw bi laabo malaan maanaam sa yaramu bopp bi ak sa yére ak fa ngay taxaw di julli rek ci gàttal la ñuy wax naa nga mën cee julliwaale sobe ci yooyu te di ko tey te mën koo dindi loolu wax ji gën a wër mooy boo ko defee rek faaw nga baamu julli ga boo julliwaale sobe te tey ko rek faaw nga baamu dañ cee wuti nag faqi la waxees na ne inna zalika naka loolee waajibul aji war la fii maa ci ñoom ñaar wujoobal faraay bi kenn waruk farata ya waxi la waxees na ne wujooba sunna ni kenn waruk sunna ya almu ak këdët yi duñ fedd li daal ñu wax ne bañ a julliwaale sobe ab sart la ci wéru julli gi am ñu ne déedéet sunna la rek ci nga bañ a julliwaale sobe nga xam ne boo ko tayoon julliwaale sobe itam ñoom def nga lu gënul rek waaye du tey julli nga baax wax ji siiw ci fiq maali nag mooy su fekkee dafa julliwaale sobe te tay te tey ko moom faaw day baamu faaw ndax ñoom dañoo jàpp ne ndegam fàttewoo ko te mën ngaa tàggoog sobe si kon boo ko julliwaalee te tey ko rek bàyyi nga sart ci julli gi faaw da ngay baamu julli ga ci lu war ci jox daal moo gën a wóor. wóobu na def na tere xandi salaati walis julli fi maatinil ibili ci yësukaayu gëléem ya maanaam gëléem fa mu yës fa gëléem fa gëléem ya yës dañoo sib bu fa jullee dañu ko aaye te xam ñu tax nag ndax xam nga gëléem moom am sawam laab na ay xeetaam laab na ndax moom dagan naa lekk te lu lekk sobe waaye teewul rek ñu aaye nu jullee ci fa mu yësoon moom gëléem loolu ne kon xamuñu lu tax wa ma xajjati tarix ak digg aw yoon jullee ci digg aw yoon moom sib nañ ko waaye moom dañ caa ca boo ci wóoludikoo ak laab rek de boo ci boo la wóoree ne laab na mbaa lal nga ca lu laab rek ci digg yoon moom sibatuñ ko wa zahri baytillahi ak kaw néegub yàlla bi alxaraam ba duñ ormaal yéeg bi ca kaw kaaba nga jullee ci kaw moom dafa araam moom boo ko defee julli ko du wér ndax ndax lañ doon noo digal ñu jublu jëmmi kaaba yow nga yéeg ba ca kaw teraasu kaaba nga di ci jullee moom du baax wal xamaami ak baytu xamaam xaytu laa yooqanu foofu xam ne def lu wóolu min xucca moom du taxaaratin ci laab baytu xamaam mooy ab sangukaay rek salle de bain foo xam ne fay sangoo la ci ëpp di fu wóolu sobe kon daañu sib nga jullee fa waaye bu la wóoroon ne des na fa sango waaye saas ba dañ faa sot ndox ma ba mu set ba taqatul sobe bu fi jullee du ko tee baax wal masbalati akub santaare santaare mooy fu ñu tur mbalit dañuy jàpp ne kon warta set kon moom itam des fu mën a julli wal majji sirati akub rendikaay nga deret sobe la kon foo xam ne dañ fay rendi sobe dafay nekk des fu mën a julli waaye yëpp rek boo ci lalee lu taw te laab rek mën caa julli wa maqbaratil mushrikina ak armeelu yéefar ya wa kana isin ak seeni jaamukaay armeel yi moom saye boo gàttal ko ci julli ci armeel moom bu fekkee dañ caa wóoloo di ko sobe des na ko sib rek yem ci waaye bu la wóoree ne sobe amul ci armeel ya mën nga caa julli moo xam nag armeel julli ñi moo xam armeel yéefar yi la jooju wax moom moo gën a wóor li mu wax itam ci jaamukaay yéefar yi bu fekkee da nga faa jullee ci sa coobare rek te nga xam ne foofu amul sobe mbaa da nga ko faa wóolu di ko kese yem ci kon daañu ko sib moo xam jaamukaay ba bu yahood la wala bu nasaraan la mbaa sax feneen moo xam ña nga fay ñëw ba tey moo xam ña nga fay ñëw ba tey ñoom ña ko fa def wala ñëwatuñ fa moom daal saa yoo fa jullee ci sa coobare rek ñu sib ko waaye bu fekkoon ne da nga faa mënta ñàkk jullee nag ndax waxtu wa jot na te amoo feneen foo jullee nga jullee fa kon des ko sipp su fekkee da nga jullee ci seen jaamukaay yooyu benn ci nag ci loo xam ne yaa ko coobarewu te fekk na booba jaamukaay ñoom ñu nga fay ñëw ba tey waaw su boobaa kon dañu bëgg nga baam ci waxtu wa dañ la yemale koo xam ne dafa julliwaale sobe ci fàtte rek ko defee ñu bëgg nga baamu ci waxtu wa wa aqallu ma gën jaanee yi la nga xam ne yusal yi dana jullee fii ci moom arajulu góor mi ne libaas ci tol taw bun mooy malaan saatir mi ak yu suturaal min dirhin ci mbubu aw ridaayin wala làmbaay day bëgg a wax li nga xam ne boo dee julli lu néew néew nga war koo sol sa julli dara baax nee na mooy boo dee julli faaw nga sàng sa awra awra nag bu dee góor moom mooy tàmbale jumbax ba ci bëti woom kon nee na bu wutee mbalaan mu ko suturaal jumbaxam ba ci bëti woom rek loolu farata ji jeex na bu jullee mu baax wa dirxu dirxu boobu nag alxamiisu mooy mbubb dirxu daa firi mbubbum xare ñu koy wax mbubbum koŋ waaye moo ne ne fii mbubb rek la ci jublu wa yukrahu def na sib an yusalli ya mu jullee bi taw bin ci malaan lay saxala ak taafi yi moom déet mi nekk ci mbaggam ya min fu ca moom cheyoon dara nee na nag sib ni nga am ay yére ba noppi ba ngay julli dangaa sàng rek awra ji yem ci maa di tàmbalee jumbax jëm bëti woom waaye tegoo dara ci sa kaw yére ya nga sol dara nekkul ci sa kaw mel ne say mbagg jëm ci biir bëgg dënd bi tegoo ci dara loolu moom nee na daañu ko sib bu fekkee am nga meneen bu fekkee sa tëri la nag sa say ñàkk sër la moom dara du ca nekk fayin moo tax mu ne fayin faxala dem def na ko it lam yoxi du ko tax a baam siw rek la ko defee du tax baam war ca wa aqallu ma gën jaa néew la nga xam ne yu ji siw dana doy almar ata jigéen mina libaas ci ko daay fi salaati ci julli ak dirxu mooy mbubu alxasiifu muy aji tal ak saabixu muy aji jot allasi ma nga xam ne yastu dana suturaal dufoora xadamay haa bittib yaari ndëgoom wa ximaarum ak ak muuraay tataqannahu ak dana muuroo bii ci moom nee na jigéen moom dañuy jàpp ne yaramam yépp awra la lépp la war a sàng bu julli ba mu des kanam gi teng yi moom rek motul awra waaye lu ci loolu rek moom da ko war a sàng moo tax naa day yor mbubb mu tal mu jot mu dem ba buubu ci kaw ay tànkam nuur itam mu des kanam gi kese rek wattu baasiru dana jonjonteeg bi ko fay xaa ci yaari jàngam al arda suuf sa fi sujoori ci sujoot ba mis la rajuli kem góor waaye nee nag ba mu nee day sàng aw yaramam ba mu buubu ci kaw ndëggu ya ne day bañ nga defee ne kon ba tey téng yu bari da ko war a suturaal mu wane ne kon ay téngam moom day jonjonteeg suuf si waaye téng yi moom du ko suturaal maanaam du du muur téng yi rek la bëgg a wax